la centrale d'achat dafa lay won ni ce qu'on pourrait appeler la qualité de la dépense publique mmh. faire de telle sorte que un franc des finances publiques qui seront dépensés soit dépensés dans des logiques d'efficacité, d'efficience et de rationalisation. Mmh. Et aujourd'hui, c'est des principes qui sont au cœur de ce qu'on appelle la théorie des finances et gestion publique. Mmh. L'efficacité. Il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser. mais il s'agit de rationaliser mm -hmm. et de faire dans l'efficacité parce qu'il y a les ressources très rares, très limitées face à des besoins illimités. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a une nouvelle conception du budget. Euh, qui ne veut plus dire que les charges sont là, il faut les couvrir. Mm -hmm. Non, mhm. il faut faire des choix et il faut faire de l'optimisation. Aujourd'hui, l'optimisation financière mmh. est entrée aussi dans le secteur public qu'on appelle l'optimisation budgétaire. Mmh. Et de ce point de vue, décision bi président jël c'est une excellente décision. Mhm. mais pour man président war na ko gën a pousse. c'est-à-dire quoi mhm. dans la centrale d'achat que nous puissions privilégier lépp lu ñu war a mën a defaree fii. Mhm. jëndee fii ci suñuy artisan ci suñuy industriel ci suñuy fabricant ñu jënde ko fii d'abord. du ñu dem jëndi ci biti lu dul. lu fi amut lu fi amut. Mhm. mais qu'on ne raisonne plus en li fi am nekkul qualité qualité supérieure am fële la nekk. ci biti la et d'ailleurs c'est là où ça devient important. Mhm. ñi fi am qualité inférieure par rapport li biti c'est parce que dañu amul commande bi. waaw bu leen di permettre ñu am benn ressource. am benn épaisseur. Mhm. pour leen mën a ñu mën a toucher vers la qualité. est-ce que comprendre nga parce que ay ñoom Samsung yi ngay dégg nii ah, ay ñoom Sony. bu njëkk ba dans les années quatre-vingt bu ñu mësaan defar appareil boo ñëwaan États-Unis c'était considéré comme de la pacotille. Ouais, ouais, ouais. comprendre. Mm -hmm. à l'époque les Walkman les magnétophones et cetera. Mm-hmm. considéré de la euh, pacotille et d'ailleurs boo xoolee booy rappeurs yi yi nekkoon ci underground. waaw rek ñoo ko daan mën a jënd yooyu parce que on les considérait pas. mais c'est à force que ñuy dem ñuy développer ay compétence mm-hmm. ba tey jii ils ont excellé. dans les kii et ñun tamit il faut que ñu jox sunu euh, artisan sunu fabricant. les possibilité yeneen yeneen économie mm-hmm. jox seen seen i seen i euh, fabricant mm-hmm. c'est-à-dire que xam nañ d'ailleurs moom mooy ceeb bi on l'a réussi ci ceeb bi waaw mais on doo le réussir ci yeneen yi ci achat yi mm-hmm. xam nga ceeb bi bi muy doo ko door et d'ailleurs c'est le lieu de saluer un excellent travail que Koutia a fait et d'ailleurs président maa ngi lay yëgal ak Ousmane Kouthia dafa feebar quoi. Hmm. waaw lu ngeen ci mën a taxaw rek ngeen taxaw ci quoi. Hmm. yàlla ko yàlla yëkkati bi quoi euh, xoolal ceeb bi bi muy doog a ñëw. sénégalais yi dañ ko bàyyi woon. waaw mooy parce que jamono ceeb wàllu. très bien c'était pas bien fait. Mm -hmm. non seulement Kouthia a joué un rôle très déterminant ci kii bi. Hmm. mais euh, accompagne bi leen gouvernement bi accompagner. mooy ça a permis au bout de cinq ans mhm. ils ont passé de lu amul qualité à aujourd'hui lu am qualité aujourd'hui boo duggee ci biti gi sénégalais lu ñu lay njëkk a laaj est-ce que am nga ceebu waalo ceebu mbay mi mhm. su amul ceebu mbay bi ci lay gars yi doogu kii donc au bout de trois ans quatre ans on a inversé les tendances sénégalais yi ci bëri ceebu bitim réew parce que suñu ceeb yi amu woon qualité parce que dara am ay tànn mais léegi femme yi boo demee ci waaye dañu naan léegi suñu ceeb bi baax na mhm. amatul ay tànn te moo gën a nutri te moo gën a baax mhm. gis nga noonu ñu ko defee ba réussir ko ci ceeb bi ànd ceeg bailleur de fonds yi surtout ah les les les programmes RIE de US et cetera jox leen matériels yi ñu soxla ba ñu dem vers la qualité mhm. noonu nañu war a defee nag ak sunu achat yi ñuy war a def au niveau de nos administrations publiques même bu fekkee dañuy jënd table bi sax muy muy damm après nañu ko jënd may gaa ñu mën a dem wuti les moyens nécessaires. waaw pour ëllëg ñu mën a defar quelque chose de de de de de. lu baax de qualité de il faut mu am benn genre passage à vide. Mm-hmm. pour ñu mën a àgg et cetera. et donc pour man président li mu wax ni je suis parfaitement d' accord. Mm-hmm. nañu teg centrale bi mais aussi nañu accompagner la production en interne. Mm-hmm. ba nga xam ne Sénégal lu ñuy jëndee parce que man je suis révolté quand je vois au Sénégal. le mobilier de bureau dañuy dem di ko jëndi ay turquie ak te pourtant on aurait pu le faire ici ah oui nañ ko fi def de am na ah yu bari yoo xam ne xam-xam bi mu ngi fi xereñ bi mu ngi fi mais lu fi amul nag sauf que nag booy dañu amul euh, dëggal maanaam booy sax mais ñuy liggéey ouvrier dañu amul moyen très pour man nag la centrale d'achat day ñëw régler benn question boo xam ne mhm. l'idée était très bonne mhm. chez Macky Sall mais amul woon mise en œuvre ou amul woon contenu ce qu'on appelle le contenu local la préférence locale. la préférence locale. si la centrale d'achat. moom de ñaari walis laa ko gisoon mu taxaw daal gàddu ko. très bien si la centrale d'achat. Mhm. devra nous permettre de mettre un contenu euh, direct. Mhm. sur ce qu'on appelle la préférence locale euh, euh, nationale. ou locale. Mhm. ou le contenu local ce serait une excellente idée. parce que l'idée amoon na fi mooy le contenu local. Mhm. mais amuñu woon le plan opérationnel. léegi nag Diomaye mi ngi doog indi la plan opérationnel c' est les centrales d' achat. waaw est ce que comprendre nga. Mhm. fële on avait une idée mais on a on buté à l' moo tax dañ koy wax ni c' est consacré du point de vue principe. mais ouais. dans les faits. Mm marginal c' vrai que c' est vrai nañu wax loolu. léegi nag très bien depuis Ablaye Wade sax. léegi nag Diomaye nous donne la chance inouïe. d'un principe qui a été consacré depuis Abdoulaye Wade Macky Sall et de lui donner un contenu opératoire mhm. c'est les centrales d'achat bu amee rek waaw kon donc sunu militaires yi seen tenue yi ñuy sol waaw bu ko kenn jëndee ci bitim réew sunu takk der yi mhm. seen dàll yi ñuy sol mhm. bu kenn jëndee ci bitim réew mën nañ ko defar fii dàll ngaay bot yi bu ngeen leen joxee référence ñu defar ko sunu ceinture waa armée yi. Mhm. bu ñu ko kenn defaree yooyu euh, sunu gamel yi armée yeeg yooyu sunu tëgg yi. Mhm. mën nañ ko def c'est-à-dire que. loo soxla mobilier de bureau au niveau des ministères des agences tout tout tout loo bëgg. li les même les tissus de décoration et cetera euh, Sotexka bu euh, Kaolack. Mhm. et cetera et cetera. c'est-à-dire que dafa war a nekk benn principe lépp lu ñuy war a commander rek d'abord day fekk amul fii. mais su fekkee. am na fii même bu fekkee y a un prix fort à payer. Mm-hmm. ñun de góorgóorlu on préfère qu'on paye ce prix mais fort. mais ñu fay leen. très bien ñu xam ni. Ah. on en a pour cinq ans euh, jox leen départ. Mm-hmm. on va payer le prix fort. on va galérer mais ou bout de cinq ans on règle définitivement. Voilà. la question ko defee suñu gars yi nga xam ne ñoom la ñuy jéem a jàppale. voilà ñu gën a yokk sérieux ah, gën a yokk xereñ ci li ñuy def. et d'ailleurs pour ah. man euh, de tout ce que le président a dit. Euh, au-delà de dire que je ne fais pas un bilan mais je suis dans la redevabilité Tout euh, le mot qui m'a le plus plus mhm. ou l'idée qui m'a le plus touché mhm. de tout ce que le président a dit c'est les centrales d'achat même man mi c'est les man boobu ba tey ah damay toogaat di xalaat ne bu ñu ko jëmmalee ça c'était ah, fi mu mën a yóbbu Sénégalais yi phénoménal c'est extraordinaire te it boo ko jëlee à un niveau beaucoup plus euh, réduit di nga am contrôle ci commande yi ñuy def di nga ci am. absolument di nga ci am main mise absolument ah, absolument euh, mu nekk lu am solo. ba ñu nekk ci seen euh, émission euh, Actu Show ah ànd ceeg ki koy bañ. Mhm. <laughs> le grand chroniqueur. waaw petit chroniqueur <laughs> laa lay woowee ah <laughs> Yamou Bamba Ndiaye ñu ngi koy jaajëfal. mu ngi lay mhm. mu ngi lay. jaajëfal saluer au passage waaw maa ngi siyaar ah, ak njool Diop Ndiol Diop aussi. Mhm. ñu ngi koy jaajëfal xam nga les les les internautes wala les les de. que sunu gaal 24 dañu mm. fidèle au rendez-vous ah, et puis dañuy dañ ci boole yoo xam ne absolument yow sax dalay des fois mm. boo demee bay bëgg réer sax waaw xam nga ah. xam nga ah. euh, comme ni nga ko waxee tey tam xarit la waaw normalement les gens devaient être chez eux euh, di lekk seen cere comprendre nga mais télévision rendez la mm-hmm. moo tax ma ni madame da ngay bàyyi ci cere ji moom da koy teg foofu rek. Mm-hmm. parce que dafa am ñoo xam ne dama leen joxanteeg ñoom rendez vous. Mm-hmm. Oh, bàyyil ma dem assurer rendez bi <laughs> su ma ñëwee nag